98.5 Dakar, 22h de Sen Radio à la une de cette édition. Série de l'affaire Ousmane Sonko. 20 personnes arrêtées euh, ce la police, actuellement en garde à vue au commissariat central, poursuivies euh, pour participation à un attroupement interdit sur la voie publique. Les avocats des patriotes se mobilisent pour leur défense. Parmi ces manifestants interpellés, le syndicaliste Dambodj, indignation. Ses collègues euh, enseignants dénoncent et exigent sa libération. Le QCM authentique menace de perturber les évaluations du premier semestre. Et puis, euh, pendant ce temps, les soutiens à Ousmane Sonko se manifestent au-delà euh, de la personne de Sonko. C'est la démocratie sénégalaise qui est menacée. Réagit en tout cas l'ancien ministre Habib Sy. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Autre point de l'actualité, le malaise profond chez les prestataires des classes préscolaires communautaires de scolaire qui rencontre de sérieuses difficultés. Conséquence, le cycle préscolaire boitit dans cette région. Les acteurs pointent du doigt le désengagement des autorités locales et sollicitent le de l'État du Sénégal. Dans cette session d'information, toujours la grogne des travailleurs de l'hôtel King Fahd Place. Ils fustigent le licenciement abusif de 76 employés de l'hôtel. À suivre également dans l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, les gendarmes tombent euh, sur une tonne et 5

qui vous dit euh, bonsoir et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ces séries d'arrestations euh, depuis l'éclatement de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, 20 personnes interpellées ce samedi à la place de l'Indépendance par la police, toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat central. La participation à une manifestation interdite et participation à un attroupement interdit sur la voie publique. Euh, entre autres chefs d'accusation euh, retenus contre elle. Les avocats de Pastef se sont mobilisés pour leur défense. Maître Khoureychi Ba au micro de Birama euh, Monsieur Karim Gueye notamment et euh, Dame Mbodj accompagnés de jeunes sénégalais ont été arrêtés donc sur et autour dans les parages de la place de l'Indépendance. Et je précise qu'il y a quelques jours, ils avaient déclaré leur manifestation à la préfecture pour ce jour. Donc, ils y étaient, euh, peut-être pour les besoins de cette manifestation. Mais au constat que les forces de l'ordre avaient quadrillé les lieux, eh ne se sont jamais attroupés, donc ils s'apprêtaient, ils erraient dans les rues comme ça. et ils ont tous été arrêtés sauf peut-être euh, Karim Gueye qui a eu à pénétrer dans le périmètre interdit entre guillemets. Les autres ont été arrêtés devant les banques ou devant la chambre de commerce ou devant d'autres édifices ou carrément dans la rue en train de causer ou d'acheter du café, etc. Donc ils sont au nombre de 20. On leur reproche donc euh, le délit de participation à une manifestation interdite délit de participation à un attroupement interdit sur la voie publique. Ce sont des incriminations voisines. Et il y a euh, aussi euh, la violation du décret de, de, de, de l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date euh, du février dernier, donc, qui prolonge donc, les effets de cette ils appellent état d'urgence sanitaire. Voilà, donc c'est pourquoi ils sont poursuivis, ils sont en ce moment gardés à vue dans les locaux du commissariat central. J'ai pu euh, m'entretenir avec eux et les laisser par la suite affronter leur interrogatoire. Je que deux confrères m'ont rejoint par la Maître Babacar Ndiaye et Amadou Sow, et ils s'occupent donc euh, du cas de ces honorables citoyens. Maître euh, Khoureychi euh, Ba donc euh, sur l'arrestation donc de 20 personnes je vous le rappelle interpellées sa samedi à la place de l'Indépendance par la police ces personnes toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat central parmi ces individus interpellés donc le syndicaliste Dame Mbodj arrestation qui suscite une vague de réactions et d'indignation le CUSEMS authentique exige la libération sans délai de son secrétaire général Dame et de ses codétenus. Les ces enseignants menacent de perturber le système scolaire, notamment les évaluations du premier semestre. Docteur Mamadou Ndiaye, secrétaire général départemental du CEMS e Authentique, interrogé euh, par la rédaction de Sud FM. Voilà, je viens de rencontrer le camarade Dame euh, au commissariat central. Il se porte très bien, le moral est très bon. Donc on a échangé, on a discuté. Et par rapport à cela, j'attire l'attention des autorités que Dame n'a fait qu'exercer son droit constitutionnel. Il a le droit, avec ses camarades, de marcher ou bien de faire des sittings. Et par conséquent, nous attirons l'attention des autorités que Dame Mbodj a été interpellé et transféré au commissariat central. Il est allé là-bas sans pathologie, sans maladie, et nous souhaiterons que le camarade Dame en sortent sans problème. Le QCMC authentique, en ce qui le concerne, exige et réclame la libération immédiate du camarade Dambot et de ses co-détenus. Également, demande à tous les camarades du QCMC authentique, des sympathisants et au-delà même les camarades du G20 à se tenir prêts et à exiger la libération sans délai du camarade secrétaire général national du CUSEMS authentique, en l'occurrence le camarade Damboj et de ses co à savoir Karim Kharab et autres. Si le camarade Damboj n'est pas libéré, les évaluations du premier semestre seront perturbées. Voilà, les enseignants du QCM e sont anti qui menacent de perturber chez les évaluations du premier semestre. Et puis, euh, le secrétaire général du QCM, e Abdoulaye Ndoye, euh, dénonce ce qu'il appelle une arrestation arbitraire, exige la libération sans condition de tous les euh, enseignants arrêtés dans cette affaire. Euh, donc, euh, Ousmane Sonko Adissar, Abdoulaye Ndoye, que nous écoutons. Il y a deux, trois jours, notre collègue Jean-Ousmane Biaï a été arrêté dans son école, dans sa classe, et les forces de l'ordre ont violé les franchises de l'école sans tenir compte du fait que l'école est un sanctuaire. Aujourd'hui, c'est une arrestation de plus. Le QSAMS dénonce toutes ces arrestations arbitraires et exige la libération de tous les détenus, y compris le camarade Dambout. Il faut qu'on libère tout le monde. Il faut que l'État comprenne que les, le droit de marcher et le droit de s'exprimer sont des droits fondamentaux qui sont consacrés par la Constitution du Sénégal. Donc, par conséquent, on ne doit pas user de l'arbitraire. Nous l'avons dénoncé et nous exigeons la libération de tout le monde. Je crois que la démocratie, doit pouvoir régler tous les problèmes. Et nous, nous l'avons dit et nous le répétons. Cette situation est une situation qui ne profite à personne. Le pays a besoin de sérénité, de calme. Nous exigeons la libération sans condition de tous les détenus, y compris la libération de Dambo, compagnie, tout le monde. la libération et qu'on arrête les arrestations arbitraires, notamment dans l'espace scolaire, parce que l'espace scolaire est protégé par les franchises scolaires. La manifestation est un droit garanti par la Constitution sénégalaise, réagit en tout cas le secrétaire général du SADEF, euh, Mbaye euh, donc euh, que nous écoutons également. Il faut dire que par cet acte, on est en train de baïonner les libertés individuelles et collectives Parce que comme vous le savez, notre pays a toujours été une havre de paix, une démocratie en mouvement où les libertés individuelles et collectives ont toujours été respectées de par le passé. Mais ce que nous constatons ces derniers temps montre à plus d'un camp que le, les libertés individuelles et collectives sont en train d'être baïonnées. Et c'est la raison pour laquelle le SADEF dénonce et condamne l'interpellation du camarade Tambot et par la même occasion exige sa libération sans condition et sans délai. Mmh. Parce que Dambodj est un enseignant, Dambodj est un responsable des syndicats et par conséquent, il n'a pas à faire les liens de la détention, mais il est en train de faire un travail de titan pour les, au profit des masses laborieuses. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que responsable des syndicats, nous lui manifestons notre soutien et notre solidarité et par la même occasion demandons à ce qu'il soit libéré dans les plus brefs délais. Et puis le secrétaire général du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal demande au chef de l'État de poser des actes concrets allant dans le sens du respect du protocole d'accord au lieu donc d'enfermer euh, arbitrairement des enseignants. Pape Momodou Kane, que nous écoutons. Vraiment, aujourd'hui, on est en de bafouer les libertés syndicales, les libertés tout court au Sénégal. Et cela, c'est inacceptable. Ce que nous réclamons c'est la libération immédiate et sans condition de notre camarade secrétaire général, M. Dambod. Sa place n'est pas entre les mains des policiers, sa place est ici avec les enseignants. L'État du Sénégal, comme je l'ai dit, a violé tous les accords que nous avons signés avec eux depuis Et on n'a rien dit. Et force doit rester à la loi. Parce que aussi en tant que syndicaliste, nous avons la capacité de porter, n'est-ce pas, cette affaire-là au niveau au Sénégal. Et compte tenu du contexte de la pandémie, c'est extrêmement grave d'arrêter des dignitaires comme Dambodj, c'est extrêmement dangereux. Donc je considère qu'aujourd'hui, nous devons dialoguer et essayer de trouver le juste milieu pour que le, Sénégal reste euh, vraiment un havre de paix et de développement. Dame Mbodj 19 autres personnes donc interpellées ce samedi par la police toujours en garde à vue euh, c'est dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr au-delà de la personne de Ousmane Sonko justement c'est la démocratie sénégalaise qui est menacée euh, réagit chez l'ancien ministre Habib Sy que nous écoutons. Nous avons le droit et l'obligation de venir le soutenir parce que au-delà de sa personne c'est la démocratie sénégalaise qui est menacée Et si la démocratie est menacée, étant euh, un système très fragile, les citoyens, les leaders politiques qui se considèrent comme des démocrates, ont l'obligation de se lever pour défendre cette démocratie. Malheureusement, de l'autre côté du pouvoir, on ne semble pas très bien le comprendre, parce que nous n'avons pas besoin de cette situation. Aujourd'hui, on a la Covid. Les Sénégalais sont en train de mourir. Aujourd'hui, on est en train de perdre des milliers d'emplois dans ce pays. Aujourd'hui, vous allez à Ndiatimar, Guédiawaye, etc., dans les villages les plus reculés, l'économie est presque à terre, ça ne fonctionne plus. Pourquoi diantre veulent-ils nous mettre un problème qui n'en est pas un? Et je crois que s'ils étaient intelligents, compte tenu de la situation, ils n'allaient pas agir de la sorte. Mais c'est un combat. que nous menerons toujours, on l'a toujours mené, nous continuerons de le mener pour que les libertés continuent de s'exprimer au Sénégal et pour que la démocratie soit renforcée et consolidée. L'ancien ministre Habib Sy, par ailleurs président du Parti de l'espoir et de la modernité, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi ces difficultés notées à Sédhiou. Les classes préscolaires communautaires euh, traînent de réelles difficultés à l'origine euh, de leur contre-performance. C'est la conséquence du désengagement manifeste des maires concernés qui avaient euh, pourtant promis de leur allouer une subvention annuelle de 500 profond chez les prestataires de ces classes qui sollicitent le soutien de l'État du Sénégal. Correspondance Sidiou Moussa C'est à partir de que ces classes préscolaires communautaires avaient été expérimentées pour la première fois dans la région de Sédhiou sur proposition de El Hadj alors inspecteur de l'éducation de Sédhiou, avec l'accompagnement de l'UNICEF. Après une décennie de mise en œuvre, ces CPC sont en chute libre. Les engagements pris par les maires pour une enveloppe globale et annuelle de francs CFA pour la motivation des volontaires qui tiennent ces classes

de l'effectif des classes préscolaires. Il était question également, après l'ouverture, de les confier aux maires des communes ont abrités pour une subvention de 500 000 francs. Malheureusement, on s'est rendu compte que les engagements pris par les élus locaux, pour la plupart en tout cas, n'ont pas été respectés. Aux maires qui abritent ces CPC-là de se ressaisir. Dans le département de Sédhiou, une rencontre similaire est organisée à Bambali, occasion pour les volontaires de Appel est le directeur des CPC de Bamakunda. On ne perçoit rien. Bon, ce que nous voulons aujourd'hui, que l'État nous prenne en charge. On est comme ça, bénévole jusque-là. Quant à Yves-Olivier Kassoka, le chef du bureau de zone UNICEF, il a tenu à rappeler le rôle déterminant que jouent ces classes préscolaires communautaires avant de solliciter l'accompagnement des maires. Le premier adjoint au maire de Bambali, Gilbert Sadio, a répondu que des perdiums pourraient de

ça nécessite un préalable. Et pas licencier les anciens qui sont là depuis qui ont accompagné l'hôtel, qui ont tenu l'hôtel jusqu'à cette heure-ci, et ensuite maintenir les gens qui viennent à d'avoir un contrat de six mois, un an, deux ans, trois ans. Derrière ce licenciement, nous voyons un règlement de compte parce que le processus a été biaisé. Nous n'avons euh, la direction de King pas été faites pour ce licenciement économique. Une réunion a été tenue,

qui nous avait reçus et qui nous avait donné la promesse que vous serez accompagnés. L'État du Sénégal ne laissera jamais tomber le King Fahd. Pour rappel, ce sont La plupart de ces derniers ont fait plus de de service au King Fahd Palace. Les démarches adoptées par euh, les responsables de King Fahd Place euh, sont inacceptables, réagit le secrétaire général de la CNTS, la centrale qui compte poursuivre la lutte. Mody Guiro au micro d'Ismaël Marcel Colly. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, par ma voix, voudrait ici solennellement vous dire que cette procédure mise en œuvre au King Fahd Palace n'est pas une procédure acceptable. Nous sommes dans un état de droit appeler la direction du CRIFAC à la raison. Cette situation est une situation exceptionnelle, mais elle est conjoncturelle. Nous allons dépasser cette pandémie grâce à la solidarité de, tout, de tous les Sénégalais, grâce à notre comportement responsable, grâce à comportement responsable par le respect des mesures, n'est-ce pas, édictées par nos autorités, notamment le ministère de la Santé. Nous sommes des croyants, mais nous nous battons pour nos survies. Et il faudrait que le, la direction du CNPAT ressaisisse, respecte ses engagements. Nous allons poursuivre ce combat avec vous dans la plus grande légalité jusqu'au Bureau international du travail. La discrimination n'a pas de sens dans cet état où nous sommes. Le travail doit être traité de la même façon, sur le même pied d'égalité, quelle que soit leur appartenance syndicale, dans un état de droit, avec une législation, avec un code du travail, Le licenciement économique fait appel à des procédures bien établies. Nous ne disons pas que tout le monde, tout le monde doit maintenir l'emploi à vie n'existe pas, n'existe plus d'ailleurs. Mais nous pensons que le respect commence d'abord par respecter ses propres travailleurs qui ont contribué à faire prospérer les entreprises du Sénégal. Mais comment peut-on accepter que des mesures soient prises, que les délégués soient informés, en dernier ressort, que les travailleurs soient informés de leur licenciement par SMS. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International.

Au moins 50 combattants ont été tués dans le commandant, euh, dans le commandant des forces spéciales dans cette région, selon les sources militaires loyalistes. Parlons sport. Ligue 1 sénégalaise, 9e journée du championnat de foot euh, professionnel, donc le Casasport qui a battu ce samedi Niary Tally 3 buts à 1 stade Alioune Ndoye Diatta de Ziguinchor cette victoire obtenue avec la manière euh, donc réjouit le coach du Casa Ansou Diadou il se nomme que nous écoutons également au micro de Ben Michel Kanfou. La consigne c'est qu'il fallait se concentrer et quand on a le ballon il faut jouer pour aller marquer parce que nous avons besoin de gagner et quand on perd le ballon il faut empêcher l'adversaire de jouer et le maintenir dans sa zone pour maintenir la pression pendant les 15 premiers minutes Et je pense que cette consigne a été respectée dans les minutes, même si on n'a pas marqué. Donc la consigne, c'était vraiment de mettre la pression sur l'adversaire, ne pas le laisser euh, souffler, ne pas le laisser prendre confiance. Ce qui est dommage pour nous, c'est qu'on a chaque match, ou bien la veille de match, on a un blessé. Même aujourd'hui, on a un blessé la veille vraiment de nos entraînements. C'est regrettable, mais on est obligé de s'adapter aux situations qui se présentent à nous. avec les deux encore. parce qu'on avait récupéré deux et il y a quelqu'un qui s'est blessé la veille. Aujourd'hui, il y a deux, donc on retourne encore à sept qui sont à l'infirmerie jusque-là. c'est de ne pas perdre et chercher tout le temps à gagner à domicile. Parce que si nous parvenons à engranger le maximum de points à domicile, je pense qu'on sera parmi les équipes qui vont être dans, la tête du championnat. Et puis du côté de Niaritali, c'est une grosse déception selon le coach Hassan Gueye qui se projetant sur le mercato pour renforcer l'équipe. Hassan Gueye que nous écoutons toujours au micro de Ben Michel Kanfoudi. Continuer le travail, remonter le moral qui joue car tenir encore très fort. On avait bien débuté le match, après 15 minutes on prend un but sur les erreurs individuelles, on reprend la deuxième mi-temps. En moins d'une minute, on prend un but encore sur coup franc, ce qui a stabilisé l'équipe et les gosses voulaient tout coup égaliser et en plus ils ont pris une troisième but. Depuis le début, on fait de bons matchs. Et la finalité des matchs, c'est d'abord la victoire. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'arrive pas avoir deux victoires de suite. On a eu 8 journées, a une seule donc, ce qui est important, il faudra surtout faire un travail mental au niveau des joueurs. Peut-être ça Et je dis encore, rien encore fait. Peut-être est très alarmante, mais il reste après 17 journées à jouer. Il remporter l'équipe, avoir une bonne activité offensive, un bon milieu et comme vous le, comme vous le savez, l'équipe manque. Il y ou certains postes où il y a des joueurs qui pas encore d'expérience et le niveau en ça joue forcément. Donc il faudra s'approcher et attendre le mercato remporter l'équipe. Donc, euh, Casa Sport qui a reçu et battu Niary score bout du tunnel 3 euh, buts et puis Pikine a également battu Mbour Petite Côte 2 buts à 1. Demain dimanche, vous aurez les affiches à Sec Ndiambour qui reçoit Teungueth FC, Stade de Mbour qui va accueillir Diambar, Génération Foot, Diaraf et Gorée Douane. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité tout de suite, euh, le rappel des grandes lignes. Babacar Samb. Série d'arrestations depuis l'éclatement de l'affaire Ousmane Sonko, 20 personnes arrêtées ce samedi par la police actuellement en garde à vue au commissariat central poursuivies pour participation à un attroupement interdit sur la voie publique. Les avocats des patriotes se mobilisent pour leur défense. Parmi ces manifestants interpellés, le syndicaliste Dambouch, arrestation qui suscite une vague de réactions et d'indignation. Ses collègues enseignants dénoncent et exigent sa libération. Le QCM authentique menace de effectuer les évaluations du premier semestre. Pendant ce temps, les soutiens à Ousmane Sonko se manifestent. Au-delà euh, de la personne de Sonko, c'est la démocratie sénégalaise qui est menacée, réagit l'ancien ministre Habib Sy. Euh, vous l'aviez entendu dans cette édition d'information au tout point de l'actualité, le malaise profond chez les prestataires des classes préscolaires communautaires de Sédhiou, des volontaires qui rencontrent de sérieuses difficultés. Conséquence, le cycle préscolaire boitit dans cette région. Les acteurs pointent Euh, les euh, désengagements euh, des autorités locales et sollicite le soutien de l'État du Sénégal. Dans cette session d'information, toujours la grogne de l'hôtel King Fahd Palace. Ils fustigent de 76 employés de l'hôtel. Vous avez également suivi l'actualité internationale ainsi que la page sport a donc bouclé cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par